mbokk yi dellusiwaat nañ tey ci beneen anam ak ci geneen fànn yàlla xam na ni information bi biñ koy dégg dafa fekk ñu jàpp loo xam ni lii dong nga mën a tax ñu bàyyi ko lu dul woon lii mënta tax ñu bàyyi lii liñ ñekkoon mbokk yi muy laan mu yéen a ngi dégg sëriñ daara boobu ñu jàppate fële ca njaareem muy sëriñ Ibrahima Dieng ñu war koo àtte suba ci alxames mbokk yi mbokk yi yéen a ngi seetaan de yéen a ngi seetaan de suñu population réew ñu ngi seetaan mbokk yi nañu xool ni askan wii fi nekk ñoo leen fi teg muy président muy ministre mu àndal muy député yi muy ñëpp gouverneur yi ne leen leer askan wi leen fal ñu fal leen ci falin woo xam ni ëllëg kenn ku ci nekk yàlla dee la laaj lu tax nga tànn diw mbokk yi amul lu war a mën a tax ñu tànn ñii lu ñu alquraanu karim ñi nu tànn nag ñooy toroxal alquraan ñooy toroxal ñooñu alquraan saa su ne waxtu wu ne luy daaneel daara luy daaneel alquraan luy daaneel ñooñu daara ci lay dox muy président de la république ak ñi koy jàppale ak ñëpp lan moo mën a teeba duñu yar suñuy doom yéen réew mu bon mu salte xisaaw mu xeeñ mi nga xam ni fu mu toll nii ñëpp dëkk sax gàcce la dëkk Sénégal sax jamono yi gàcce la te lu ko waral ay ndaw yu nu yorut ay ndaw yu salte ay ndaw yu nu éducation bu normalu ba ñu màgg tey jiite ñu jiite ñu ci jiite gu bon goo xam ne kenn xamatul foote teg tànk kenn mënatoo jaamu yàlla na nga ko bëggee kenn mënatoo am xel mu dal na nga ko bëggee ñu jël suñu doom nargal leen ci daara bëgg ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi représenté mag ñi bu ëllëgee bëgg am ay Serigne Touba bëgg am ay El Hadj Malick bëgg am ay maam imaamu Ibrahima Niass bëgg am ay Boukounta ñu taxaw temm ñoom ñi lii du am pourquoi mbokk yi lii nga xam ne jógati na daal ci kaw alquraanu karim su fekkee ñun ñëpp concept na la borom suñuy loxo nañu toog suñu borom moom la moo xam du dañ mukk waaye sëñ Ibrahima ñang sëñ Ibrahima Jeng ña ngi lay mastaw waaye ña wax ne bul tiit bul yokkat ala inna xisballahi humul muflahun lu man a xew kuréel bi yàlla àndal ñooy gañe te ci kuréel boobu nga bokk waaye nag alquran noonu wala nabluwannakum xatta naalama almujahidina minkum asaabirin force ma nattu leen force ma extémé leen force ma xool leen ba xam yéene ñan waaye insha allahu rabbi yàlla daa bëgg a xool ñi gën a gëm yàlla ñi gën a mën a muñ ñi gën a ragal yàlla ñooñ alquran nag ñoo ñooñu yàlla ahlu quran ahlullahi wa boo bëggee xam ne ñoo ñooñu yàlla ci kaw suuf mooy ñiy jàng alquran te di ko jàngale saa su waxtu ne ñooy ñooñu yàlla ñoom la yàlla yi ñii ñooy sama ñooñ allahu akbar mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi ni ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko xamle te daara ji gis nañ ko daara ji moderne la daara joo xam ne amul lenn lu fa man a danoose ci lu bon daara ji lu tabax karakol defar lépp peinture lépp mu rafet ay nangami nangami téeméeri élèves dafa jànge waa mbokk yi ku jóg di yëngu ci daara yéen ngeen yéen télévision yaa ngi ni seen petit gàllal ngeen war cee wax seen petit lu ko gën a mën a yàq ay ndaw daan ci réew mi lu ko gën a bon daam star de vacance bi ngeen daa organiser fii lu ko gën a bon daam di yàq suñuy ndaw ba benn benn soxna bu tudd maam jaara gañe ko gis ko fële ci bitim réew mu futti ko ba mel na ko ko boo moo ci nit ku ñuul te kooku soxna jaara a ñeneen ak ñeneen ci Oscar de vacance yéen am nga lu a dal seen kaw jàpp xam ne ñoo fa nekk di di jàngal ndaw yu mbon gu mel noonu mais ñu jóg bëgg a jàngal alxuraan ay ndaw bëgg leen taxaw bu bu ëllëgee ñu mën a taxaw réew mi mën a jàppale réew mi ngeen jóg ne lii du fi amee man day nëbb tuuma naq tuuma insha allahu rabbi sama doom fu muy jàng insha allah bu deful lu jub nan ko nan ko jéng nan ko tëj nañu ko jéng bu mu lekk bu mu naan ba li ñu bëgg ci moom ci alxuraan mu am ko pourquoi ngeen ni suñu doom yi du leen jéng pourquoi ngeen ni suñu doom yi du leen jàngal alxuraan te jéng leen te réew mi ñi ko jiite dañ daa jéng ñi ko jiite ci diine tax may wax réew mi ay nit diine rek ko jiite waxuma nit aale yi nga xam ne tekkiwuñu dara ci ñoom ñu bëgg taxaw téyeloo ñu suñuy doom bëgg ñu xale yi bañ diine xale yi bañ daara xale yi bañ nangam ak pour pourquoi yéen réew mi mbon gi def yi góor jigéen gaa ngi ni bën ko démb la président dem France journaliste France bi laaj ko nu ngeen dafa góor jigéen mu ne ma nanoo manifesté wu ca mbedd yi nu leen neexe journaliste bi ne kon du ngeen daal ci seen kaw mu ne xawma ñuy daal ci seen kaw de waaye état moom du leen laal fenn da leen di bàyyi ñu def leen neex président ko wax fii barki démb ñëpp ko dégg bi ko journaliste France bi laaj ñu laajee ko fii mu ni pareegun taxaw temm pour góor jigéen dugg suñu réew ginnaaw bi lépp xam nañ ko barki démb boo njaay ngeen gisaat fii def naa ci benn benn vidéo ah ñoo ñooñu nga xam ni ñoo jóg taxaw temm pour bëgg ñuy jàngal suñu gone yi wàllu sexe ci biir ci biir ci biir école yi te ba léegi projet baa ngi daw xamagu dee jàll xamagu du jàll président wax na rek lëndëmal xel yi kenn xamul lenn la ciy leer ngeen ngir war a jug ci yooyu wax naa leen lu ñuy jàngale ci góor ak jigéen guy sëy lu ciy suñu yoon ku takk jabar xam noo ko def góor gu ci am jabar xam noo ko def jigéen gu ci am jëkkër xam noo ko def ngeen bëgg la jàngal suñu doom yi mbon te dégguñu benn yoon état jóg wax dégg ni lii moo war a am dégguñu kenn kuy défendre ku bokk ci état muy am ministre wala kenn ku jóg ni lii moo war a am loolu syndicaliste yi la dégg ñu wax ci défendre ak ñi nga xam ne ñoo gëm seen réew te bëgg diine bu leen ñu rey bu leen ñu rey yéen réew maa ngi ni toll ci ay catastrophe yoo xam ne kenn xamul foo jëm ñu war a toll ci ñaan yéen ñi war a ñaan bu ngi leen merloo fu àdduna jëm yéen nit daara yi doo nga mën a ñaar yàlla dindi fi lii ñuy wax mbas donte baata mbas sax man dama koy ba koy bañ dama koy dàq dama koy dénoncé lii ñuy wax feebar ah feebar bii ñuy wax li ci daara képp ko war a ñaan mu dañ fi yéen bu ngeen toroxalee li ci daara fan la réew mi jëm kon yéen Sénégal daaraa ko téye di ñii fi sukkal dina raamu ñëpp daaraa leen formé boo demee Tivaouane daaraa leen formé nga dem Touba daaraa leen nga dem Thiénaba ba leen formé nga dem Léona Niassène wala euh, Medina Baye formé nga dem euh, Ndanganaar wala nga dem fi ci mel ni euh, dëkk bële daaraa leen formé njaasaan ngeen bëgg ñoo teg yu kenn xamut lu ñu wax ci daara ngeen yëkkati jël jàpp waxuma dara waaye ni ngeen jàppe sëriñu daara moo gën a métti sëriñu daara nga jàpp ko futti ko te yéen a ngi nii ñi def dégâts yi gën a rëy ci àddina bu ngeen leen di jàpp da leen di bàyyi noonu mënoot sax léeg-léeg du leen ko def ngir futti sëriñu daara ci kanam ay nawleem futti ko ci kanamu ay taalibeem pour bëgg a toroxal loolu yàlla xam na ni yéenay torox kalimatullahi xool yaa wa kalimatul lazina kafaru sufla baatub yàlla mooy dem kaw bu faw yéen nag seen baat bi day suuf faw yuriduna nuurallaahi bi afwaahim wallaahu mutimmu nuurihi walaw kariha kaafiruun da ngeen a a fay leeru yàlla waaye du fay mukk du a xamul rek dangeen a xamul rek di nga alquran mii ngeen kii ñi aman nañu leen jiitu woon fuuf gën a nekk fuuf noonu alquran tey suuf lekk na leen tey ñu ngi ci biir suuf rëccu nañ lu mu def ci kaw àdduna bu fekkee ay état ak i diplôme ak nangam ak nangam ay ay martaba yu leen gàll ak i garaat yu leen takkal tax na ngeen yaakaar ku jóg di di yar nit yi daara yi di ngeen ne war dal seen kaw dox leen ñu dem rek àddinaa ngi seen kanam bàmmee léegi seen kanam te yàggatul léegi ngeen dee ñu futti leen suuf leen ci suuf mbugal ñëw ci seen kaw mu dootul arrêté ba kara ba ilaa abadi abdi du arrêté ñooñu yàlla yàlla ni ñooy samay ñooñ mu ñooy alxuraan ngeen bëgg a delluwaa alquran loola ngeen wàlleeku përee gu ma ci yéen yaa de soit insha allahu rabbi lépp képp ko man nag insha allahu rabbi na ngeen xëy dem terminalu njaareem ba jàng ay xasida jàng alquranu karim def lépp lu ngeen man ci istixfaar waaye nag rawatina ngeen fexe ba ñaanal sëriñu daara boobu di Ibrahima Dieng sëriñ Ibrahima Dieng kullama aw xadoo naara xarbi allah na ko ñëpp def trois cent treize ñetti téeméer ak fanweer a ñett kullama awxadoo naaran lil xaam atfaaha allah maa ngi koy ñaan ñëpp ñu def ko